maa ngi woon ak yow tey ci juróomeeli njariñ bi njëriñ ya bokk na ca asaka dana desal barke dana desal ak dolleeku dana desal aw yiw dana desal aw ak teraanga ak xéewal ca alal ja noona tamit la koy desalee ca borom alal ja ku bëgg barke ki sa alal bëgg barke ci sa jëmm nga bëgg seen ñaari ndollal ya ñoom ñaar ak seen xiiwa la koy joxe daal mooy alal ji yàlla jox la moom yàlla mu moom ko jël alal ji dénk la ko ne la joxal ma ca ñii waay waay bul tee xàqi ñooña na nga fexe nga jotale leen ko xam ne yow xam satul wasli rek nga dangay jokkale Euh, loola kon barke jooju lay des te barke góor ak yàlla ga maam Khalifa Niass dafa daan wax ne du jëmmu waaye jëmmu jum nekk ñi xam ko du jëmmu jëmmu jum ne ñi xam ko du jëmmu xalal jum ne xam ko du jëmmu place bum ne ñi xam ko kon yal na yàlla barkeel suñuy jëmmu barkeel suñuy alal barkeel tabaarakallaahu suñuy place waaye tamit nga yëg ne alal jooju yàlla jox la di ko joxe bokk na ca njëriñ ya ci asaka ji dana dëgëral ak relation ci sa diggante ak nit ñi li gën a dëgëral ak kàndale ak ak xarito ak ak bëggante rek mooy jëriñe njëriñ moom fu mu génnee cofeel tabaarakallaahu dana fa jëmbatu dana fa sax dana fa meññi dana fa ñoree waaye bokk na ci njëriñ ya timit ndimbalante gi lislaam ubbi def ko ponk ci diine ji muy asaka dafa nekkoon feebar boo xam ne mbooleem aalam aalam bi di àdduna bi taxawoon nañ ngir bëgg koo faj waaye amuñu benn solution pour mën koo faj munuñ koo faj lu dul ñu jaaree ci buntab lislaam lislaam nag mi pare ngir faj ko mu jël lislaam def ko muy juróomi ponk buntab asaka di dimbalante bokku ca ponk ya ndax ñi déew ñi néew doole ñëpp ñi xam doole ñëpp buñ leen seddoo woon néew doole jeex fi bu fi néew doole jeexee nag soxor dana jeex li ëpp ci soxore gi néew doole rek waaye ñaareel bu la yàlla joxe lenn ci wërsëg dootoo soxoreeti kenn su boobaa tamit agression bi jeex fi nit ki bu demee baam am lenn ci xalal xel xelaatut muy toog ne ma ngay agressé su ko defee kon yooyu yëpp ñàkk gu ëpp rek su boobaa nag sécurité day mujj taxaw xalal yi ñoŋee bakkan yi ñoŋee der yi ñoŋee te lislaam li ko tax a jug moo doon sàmm juróom lislaam dafa ñëwoon ngir sàmmal la saxalal ji bañ lu ko yàq moo tax moom ci boppam mu xaraamal sàcc lislaam dafa ñëw ngir wattul la sàmmal la sa xel bañ lu ko yàq moo tax mu xaraamal naan sàngara lislaam dafa ñëw ngir sàmmal sa askan wi sa deret lu ko yàq moo tax mu xaraamal njaalo saa yoo njaaloo rek yàq nga askan lislaam dafa ñëw timit tabaarakallaahu ngir sàmmal la sa der bi bañ lu ko yàq ku ko yàq moo tax mu xaraamal xaste ba yoonal ne ku ko def nañ la caw juróom-ñetti fukki yar lislaam dafa ñëw muy diina ji ngir sàmm boppam moo tax mu yoonal xeex ak xéeféer yi nga xam ne dañoo contre lislaam gannaaw bi ñu leen ci xooxee ñi bañ ñi ñi ñi gaaral leen galak ñi bañ di door a xeex ak ñoom te sett ca néew ju doole ya muy ñu màgget ñaak xale yu mësoor a gudd jigéen ñaak labbe ya wéet di jaamu yàlla ci seen place ya nga xam ne kon lislaam diine la joo xam ne lenn du moom lu dul moom su ko defee kon nag yooyu ay njariñ la mu bëgg tamit wàccee ak yërëmante mu mën a remplacer ak xañaanante remplacer ak bañante moo tax maanaam mu yoonal asaka ci wàllu woowa lépp gis nga ko timit yooyu yëpp ay njariñ la njariñ yi yëpp nag boo ko toppee fa mu lay yóbbu mooy texe te nit amul lu gën a foor lu gën a màgg ci yëngatoo mi biiram yu biti yi lu ko yóbbu ëllëg ci texe ku xas texe ñàkkoo dara ku xas texe di amuloo dara waaye tamit bokk na ca njariñ ya eh, wax naa la ko dana la yóbbu ci texe texe nag moy raaya ba ku xas texe ñàkkoo dara eh, yëngatu yeeg yëpp ña ngi ca jublu rek dàkk ngërmande yàlla ngërmande yàlla yóbbu ñu ci texe kon asakaangoog ku ko génnee bokk na ko njariñ ya da nga texe nga mucc ci safara dem xal jana alquran wax na ko wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti maalahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nicmatin tujza illa butiqaa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda loolu ma ngi ci suratul layli kon ku bëgg am loola ci li ko doree ca fukkeelu aaya baak juróom ñaar ba ca ñaar fukkeelu aaya baak benn kon ku bëgg mucc ci safara te ku safara dem aljana la koy maye bokk na ca joxe asaka te ba nga koy def def ko rek ibtigaa wajhillah sàkku jëme yàlla ca kese kooku sax alquran waxaat na ko ci beneen aaya qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim xaashicuun walladina hum an illaxwi mucriduun walladina hum lizakati faailun gis nga ko timit balaayaat balaayaat yooyu di jeex la wax ne nag ulaayika ñi melokaanoo melokaano yooyu yëpp ma humul waarisuun allasina yarisuuna al firdawsa hum fiha xaaliduun kon asakaangoog di ko génne bokk na ca njariñ ya ku ko def am nga njaay mu lambut ku bëgg njaay mu lambut bu ko jaay nit jaay ko yàlla loo jaay yàlla du lamb ku bëgg marchandise mu du lamb génneexel asaka ci sa alal ji nga seet ña ko nga jox leen ko li wajhillah yàlla jëndal la ko moo tax alquran inna alladina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuura kon tijaaratan lan tabuura ku ko bëgg mooy mooy jaay ko yàlla rek ko koy jaay yàlla jaaree ko ci buntab asaka kooka moo ca gaaw moo gaaw tamit ci dimbale la ci bunt yooyu yëpp naka noonu waxoon naa la ko moom asaka ji dafa nekk loo xamee ni nii euh, wazifatun ijtimaiyatun la haamatun taqil mujtamaa min assuquti fi mahaawi radaili wa taxmihi min afaati dulli wal hawaani mu ne moom dafa nekk wasifa boo xam ne social la bu am importance buy fegal tabaarakalaaw population bi ñi mën a daanu ci kàmbu toroxtaane dana leen fegal xaar leen ci gàkk-gàkki doxadi ak torox la leen seen bopp ñoŋeelal leen tamit seen alal ji waaye gis nga ko asaka soo koy génnee rek sa day gën di ñoŋe dana mujj ci yàqu dana mujj ci lakk dana mujj ki ñu sàcc koog ñu nax la ca moo tax yonent bi daan wax ne xassinu amwaalakum bi zakati wa daawu mardaakum bi am wastaqbilu amwaajal balaa'i bil bukaa'i wa tadarru'i ñett ñett rek moo koy joxe ku bëgg sa am sécurité li nga koy sécuriser mooy génnee asaka ku bëgg mucc ci feebar yu bon yi ndeel fonk saraxe ku bëgg saa niiru gàcca xiinee du taw mën naa dënn waaye du taw foo toll balaa xiin waa xiin del torox luy jëm ci yàlla yàlla ku koy feeñu ba nga xamagut soxla boo xamee soxla rek mu feeñul la boppam sa bunt yëpp ubbeeku waaye am na ki ñoo xam ne bala ñoo xam yàlla soxla rek ña soxla loola baaxut soo xamee soxla ñaanal yàlla boo xamul soxla ñaanal wala nga ñaanal borom soxla ya waaye julli sëlmal dem rek yow itijaa bi may déglu boo demee ba toll ci door a egg semaine ak ne maa ngi dem di ñaan maa ngi door di ñaan lu ji tardé na yooyu yëpp dafay tarde ba nga xamagut soxla si yàlla nga koy commencé ñaan yoo borom kër gii ma déglu soo gisee jëkkër jafe léegi bu la yàlla mayee ñu ne ana la doom ji judd na ñu ne waaw jigéen la commencé ñaan jëkkër. saa yoo kon gisee rek ñaanal ko yàlla na ko yàlla may jëkkër ju ko attan jëkkër ju am diine te am wërsëg soo ke saxee bët bu set di ko ñaanal sa doom ji fukki at ak ñett fukki at ak ñeent bu cay toll rek koo xam ne da ko gërëm ñëw di ko ñaan na yonentu ne iza ataakum man tardawna diinahu wa xuluquhu fa zawwijuhu ilaa takun fitnatun wa fasaadun kabir waaye toog toog ba doom ya nekk jànqam lëng ngay toog ñaan jëkkër yéex na dafa war a teel sa doom ji di góor jabar ju baax yombut bam mu juddoo di góor rek commencé ñaan jabar commencé ñaanal ko xam-xam commencé ñaanal ko ay diplôme commencé ko ñaanal mu nekk cadre su ko defee nag mu ñëw fekk fi ñaan gu ñu lay taayal wala muy tapirus bu ñu lal day ñëw rek daagu ca kawam mu gaaw lool ba ku ko gis xam ne kii ñaana ko gunge ku ko fi jiitu waaye lii dara la ca mënut. moo tax kon ñaan dañ koy gaawee waaye doo toog ba am ca soxla mu ne kët ne jon na ngay commencé ne allahuma yéex na moo tax yonent bi ne wa mardaakum bi sadaqa te loolu lu jar a am solo la feebar yu bon yi ngay dégg yëpp képp ku fonk sarax muy Ebola yeneen xeeti jàngoro yaag soo fonkoyee sarax lu mu tuuti tuuti nga di ko def te yàlla rek tax da nga mukki ci xeeti feebar yu bon yooyu yëpp yàlla dana la ci musal kon asakaangoog njariñ yu rëy yi nga xam ne nii làmboo nag ko nañ ci góor góorlu bu baax a baax a baax di ko génne te yàlla rek tax su ko defee kon nañ ci bàyyi xel lii ma wax la yëpp nag ci ay njëriñ yu rëy yi muy làmboo safaan ba tamit noona la soo ko bàyyee rek mu jural la safaanab musiba ya nekk ca kawam yëpp musiba ya nag dara gënu caa dugg safara sa alal jëng doon korkoral muy xaalis bi ñu lakk ko ba mu xonq cor muy billet muy cinq cent franc ya ñu soppi dix mille franc yëpp weccat ak maanaam billet cinq mille yaag billet mille franc yaag deux mille ya mu nekk ay weccat ba mel ni weccatu cinq cent ba ñu jël ko xonqal ko lakk ko ba mu xonq cor ñi la koy ñaas ki sa biir bàmmeel di la ko ñaas ki sa biir safara kooku alquran wax na ko walladina yaknisuuna aldahaba walfiddata wala yunfiquunaha fi sabilillahi fa bashirhum bi adabin alim yowma yuxma alayha fi naari jahannama فتكوى بها جباههم وجنوبهم le هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون كوكو سورة التوبة لا آية فانوير ak juróom waaye ma ngay commencé ci aayaab fanweer ak ñeent jëm ba ci fanweer ak juróom muy tekkee ne yàllaa ngi wax na ñi nga xam ne dañoo ndàmb wurus denc ko ci banque bi ñii ndàmb seen xaalis bi denc ko ci banque bi duñ ca génnee asaka wala aha kay nekkul ci banque bi waaye ña ngi koy denc di ko commerçant di ci def commerce te duñ ca génnee asaka wala aha kay ña ngi koy bay di xaalisam mbay asaka war ca génnee wuñ ko aha kay ku mun di doon ci ñi de bu ëllëgee dañ koy defi weccet tàngal ko ba mu xonq cor ñi la koy ñaas ki sa bàmmeel di la ko ñaas ki safara yàlla nag ne fa bashirhum xam nga loolu taxakum la ci balaaxa ndax bégal ci luy bégle moo tax fa bashiruhum waxal ne rek xamal leen waaye doo ko firee bégal leen ndax bégal ci luy bégle bégal leen ki safara loolu xam nga nopp mënu koo dégg kon ñooñu xamal leen mbugal mu metti muy dal ci seen kaw te mooy bis bi nga xam ne dañ leen ñaasee ca safara wa seen jëya ak seen gannaaw yaag seen legg ya ñu jël seen xaalis booba ñu waroon a génnee asaka lépp soppi ko ay weccet tàngal ko ba mu xonq cor malaaka yi di ñaasee lii ca gannaaw ga ñii di ñaasee ca legg ya ñii di ñaasee ca jëba ku dul génnee asaka boo lëggee sa mbugal foofu la mujj alquran wax na ko yàlla nag du dëggal kenn di weddi boppam te wax joo a dégg bu la neexee nga teg ci ba mooy wax yàlla ak wax yonent bi kooku ma ala si walaay ni rek kon loola nag lii la alquran wax kenn mënu koo dindi kenn mënu koo toxal su ko defee kon nag ñi nga xam ne di nga yore ay gàtt dañuy wax ne man gàtt laa amee woon nuñ ma koy def yonent bee wax nañ la koy def alquran waxut ko yonentoo ko wax mu ne képp ku yore woon gàtt ci diggante nag ak xar ak bëy ak gëléem doo ca génnee asaka bu ëllëgee dañ koy soppi jaan mu nekk sujaaun aqra jaani ñàngoor yoo xam ne bët yaa nga ñuul kook la ca xonk xonk cor jaan ja rëy rëy rëy ba fa mu war a tollu ci rëyaay nga xam ne sax maanaam bu jaaroon fenn diis wa rek fa mu jaar boo fa jaaroon yow dangar ja topp la foog ñu lugg la waxuma la bu la màttee nag jaan jooja mooy nekk ak yow ci sa biir bàmmeel di la laxasu di la matt di la laxasu di la matt di la laxasu di la matt ba ñu wal bufta ba nga dekki téye sa téere ba mooy dem ci péncam yàlla ma ñu rek la la yóbbu safara taxawal ci ab montagne. sa nag yii nga ne woon du ma ko génnee yëkk wi la wala nga naan wëllu wi la commencé fële ñu saxal ko ba jën mu arrière ba sori mbëkk la rek nga daanu ca biir kot xóoti safara boo joxee moom doy na dañ lay taxawalaat nag mu ñëwaat di la mbëkk bu bii mbëkkee rek avancé ñu taxawalaat beneen ba ñëw mbëkk la ca la nga waroon a génnee ci asaka lépp topp la di mbëkk ca première ba ba ca dernière ba buñ buñ buñ pareete première bi ñëwaat ba ca dernière ba ci noona ngay nekk ila abadil abidina suma laa yemutu fiya wala yaxya kooku mooy xatteeb képp ko am gàtt muy diggante xar ak bëy ak te doo ca génnee asaka boo ëllëgee dañ lay taxawalab ci montagne safara tiim la ñi lay mbëkk la ca waroon ci asakaay ren jeeg daaw jeeg daaw jéeg-jéeg lépp la ca waroon ñooy taxaw di la mbëkkee noona ngay dugg ci xóot xóoti safara taxawaat ñi mbëkkaat la ci commencé ca commencement ba ba ca ko ca mujj buñ paree keneen ñëwaat ca commencement ba ca ña ca mujj nii ngay nekkee doo dee doo dund ba abadal abidina lu ko jar xalal ji da koo jar ngay koy porporal dee bàyyee ko fi ñoo xam ne man naa xam suñ ko lekkee sax duñ la ñaanal yàlla te bët bu seen man ngaa dee bàyyi fi sa xalal doo seet la cay xàq yàlla nga génnee ko lu ca bu ca desee baax na lu mu desee nga xam ne lii dese naa barke lii desee naa def naa ca santaane bi yàlla di korkor yi ba kañ yéen jarga yi di korkor yi doo génnee asaka ja ba kañ yow baykat bi yow bureaucrate bi yooyu yëpp kon nii la alquran wax moo tax alquran wax ak génne aay ne wala taxsibanna alladina yabxaluuna bima aataahum allahu min fadlihi huwa xayran lahum bal huwa charrun lahum sa yutawaquuna maa baxiloo bihi yowma alqiyamati te maa ngi leen di yëgal ne walillahi mirathu samawati wal ardi wallahu bima taamaluuna xabir kooku ma nga ca suratu al imran aya fukk ak juróom-ñett yàlla ne bu leen njortu ne ñi nga xam ne dañoo yore seen alal ya nay li leen yàlla jox ne joxeel ma ñi téye ko ne ñoom duñ ko joxe ñi foo ne téye alal googa yiw la ci ñoom yàlla ne déedéet xay la ci ñoom de su ëllëgee seen alal jooja dinañ leen ko caqalee jël weccat wa def ko ay ay ay weccat tàngal ko ba mu tàng ñu def ko caq mu tiim la caq gana ma nga ca rek day soppeeku safara wala tiim comme ni la sa caq bi maanaam euh, euh, euh, muuree sa baat bi wër ko noonu lay safara di muuree ëllëg wër la tànk yaa ngi ca biir biir baa nga ca bopp baa nga ca bët yaa nga ca bu mel ni nit ku nuur ci biir ndox noonu ngay nuuree ci safara dara du feeñ ci sa jëmm ji su ko defee ñi la ko ñi lay lakk doo dee doo dund ci loolu rek ngay nekk soo demee ba xettaliku ci ndox wa in yastaxiisu yuxaasu bi maa in kël muhli su ko defee nag sa sa sa yaram wa dëtt ja cay génn xasaw xut ñu def ko ci pot nag jox la ko nga naan boo ko naanee rek sa sa butit yi ñoree ko waat su ko defee tamit nga nekkaat ca loola ba ba ngay ba abadal abidina dee xamatul foofa yàlla nee na xalal ji lu ngeen ci nay man maa ko moom da ngeen di dee bàyyi ma fi dee bàyyi fi sama xalal ji ngeen cay korkoral foo ko teg moo tax mu ne walillahi mirasu samaawaati wal ard yàlla li gën a yéeme ci waxam bu waxee dara na muy daaneel laay rek yow ci ngay daanu wax ji yëpp bu ko waxoon te walillahi miraasu samawati wal ardi ñëwul rek sa yaram du daw waaye bam ne wala taxsibanna alladina yabxaluuna bima aataahum allahu min fadli ba laay jay jaan rek mu ne waaye walillahi miraasu samawati wal ardi ndaw lu daw daw ndaw lu daw yaram yàlla rek kay yàlla kon nag na xol yu tooy waaye jamono ji xalaat rek kër kër yi ba dee toppatoo sa alal ji di kër-kër yi ba sa diina ja yàqu damay wax toujours ne da ngaa bëgg jël sa mbubam di ah, sa mbubam àdduna mi bëgg koo daaxee sa mbubam diine mi sa mbubam diine ma yàqu sa àdduna bi du jag àdduna yàlla mi ko andi moo namut mu jag lu yàlla namut mu jàkk ku ko bëgg a jagal am problème yàlla bu namoon àdduna jàkk kenn ku ne fa sa bàyyi xem foofa ngay tàmbalee waaye déedéet yàlla bëggul mu jag fa sa bàyyi tàmbalee rek ngay tàmbalee yàlla bu namoon àdduna jag sa baay mi jur la yàlla wërsëgalee la ko nga dem a dem ba nekk waxambaane sampu kër moom mu door a génn àdduna saanam bu amee la ko gënal waaw su fekkoon yàlla na mu mu jag foofa sa baay génnee àdduna foofu ngay sof continuer su boo fa nga xem sa sët ba ñëw continuer fa waaye déedéet da commencé waat fa sa baay commencé woon ñi ëmb la nga nekk toqantal ma niiw ñeent ñeent fukki fan. lumb ñeent fukki fan suux ñeen fukki fan doora nag ñi wal roox gannaaw téeméeri fan ak ñaar fukk ngay dund sa yaay di dund juróom-ñeenti weer mbaa juróom-benn weer wala ñeenti xat wala juróomi xat sax nga door a juddu nekk ab liir jooy rek jàng toog jàng dox raam ba mën a dox commencé mën a wax commencé mën a jàng ba nekk cadre takk soxna commencé ami doom sa doom ya jaar fi nga jaar ba nga dem ñu nekk ponkal boo amee li la gënal nga door a dee ñooñu ñëwaat ñu ñu indiwaat tàmbaliwaat foofu kañ lay jàkk ku ñëw comme ngay tàmbali kañ lay jàkk su fekkoon ne ku ñëw ngay sos waaye ku ñëw ngay sos ku sosu rek ngay sos su boobaa nag yàlla moomu doxalin woowu moo ñuy tekki ne bëggul àdduna jàkk lu yàlla bëggul mu jàkk ko bëgg a jagal xam moo tax nag nañu fi bàyyi loola lépp dem jagali suñ diine ji nañ fi bàyyi problème yi poñet mi dem jagale suñ pas-pas dem jagale suñu alquran ji dem jagale sunna sur yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem jagale xalal ji yàlla sédd ñu jaarale ko suñuy loxo wax lam ca bëgg la ca yàlla bëgg ñi di ko def xeex ceeg bakkan xeex ak ngistal xeex ak ndéggtal xeex ak tagg wu rafet yeneen ci aaju yëpp ndax ñi mën a am ngërmande yàlla yàlla na yàlla defal leen ko te defal ñu ko ci barkeeb sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal leen tawfiq defal ñu ko defal leen siir defal ñu ko defal leen naataange defal ñu ko yàlla nangu kàddu yi gërëm ko ci nim toll bañ ñoo toppeeki ci ñun ñu toll yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yool ñi nga xam ne ñu ngi koy topp di ko déglu fuñ mun di nekk ñii ña nga bokk seen rajo ya ndeysaan fay seen làmp ya ñenn ña ña nga bokk rajo ya jëm ca tool ya ñi nekk ca Njaga ya ak Jakarta ya ñenn ña ña nga nekk ca seen bureau ya ñenn ña nga nekk ci seen gétt ya di sàmm di commencé yewi ñenn ñaar place yi mën nekk yëpp di topp rajo yi yàlla na ko yàlla soppi ak leer ñeexal leen ñeexal ñu ñeexal boroom kër gi ñeexal mboolem junni ñi fu ñu mun di nekk wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu